Euh, asalaamaaleykum yaa booy ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. dañu bëggoon xam tur bi ak sant bi. man Gisèle laa tudd man Juba laa sant. maa ngi dëkkoon Liberté 6 bi may ñàkk sama waajur bu jigéen. waaye tey suma kër maa ngi dëkk parcelle Assainies. bi ngay bi bi ngay waaj euh, ñàkk sa waajur bu jigéen ñaata at nga amoon yow. Euh, jàppatuma vingt ans ci ginnaaw tey war naa am. sa fait ay vingt huit ans laa amoon daal. d'accord léegi ñu ngi dégg sànq ngay wax ci affaire état bi dañ doon laajte état bi nan la leen jàppale ci euh, situation bi nga xamante ne moom ngeen nekkoon après naufrage bi. Euh, première instance yi juste après naufrage bi dëgg-dëgg boobu amul woon dara loo xamante ne mën nañu wax ni jàppala ak ñàkk jàppale boobu ku nekk sa bopp nga doon demee ak euh, ñi la jege ñoo la daan wër. xool nu ñuy nu ñu lay wëree ak nu ñu lay jàppalee ak euh, assistance boo xamante ne say mbokk moo ko doon def après sœurs yi nekkoon euh, je crois cinq jours ñoo doon def ay cellules di wax ak victimes yi di kii mais bi ñu demee ba ci biir victime yi def seen association di pousse di pousse bunt bi ba mu yàgg mujj nañ leen indemniser euh, indemnisation 10 millions par famille 10 millions yoo xamante ne divisé na famille yu bëri. am na famille yoo xam ne jël nañ ko am na famille yu ko jëlul amoon na lu bari lu xewoon si ginnaaw mais bi loolu weesoo dañ doon ñaan état bi bis bu mel ni bisu tey nii ñu def ci waxtu xàmmekaay ñu marqué waxtu boo xamante ne bu ñu xëyee au moins ci Sénégal wërngël képp nit ñi taxaw fàttale ko ne lu mel ni amoon na fi te yàlla bu mu fi amaat dëgg la métti na torop mais loo gis dangay ngay situé responsabilité su ko defee bu beneenee lu mel noonu bañ a mën a amaat waaye dafa mel ni mbir mi dañ ko këpp këppal rek daal di ko nëpp nëpp ko jigéen ñi man sant naa yàlla nit ay nit taxawu nañ ma gaa sama waa kër taxawu nañ ma sunu famille taxawu nañ ñu xaare wuñ ko ci état bi mais am na ñoo xamante ne taxawu bi dafa métti woon ba ñoom seen biir ñoo doon organiser wu di dem di ñëw. man sama waajur bu góor bokk na ci ñi daan xeex di dem ci état bi di dem di ñëw léeg ñu may xale yi ay kaye ay cartable dëgg la waaye loolu tam doyul du kaye ak cartable kese ndax nit ku ñàkk borom këram ñàkk ka ko doon jàppale doomam feebar gisu ko indemnisation bi ay mbokk waa kër ñeneen jël ko léeg du jot sax pipi ba bañ ko jagleel sax du ko jot loolu am na ci réew mi nañ ko waxte nangu ko dëgg neexul waaye looloo am am na xale yoo xamante ne tey xamuñu fu seen indemnisation parent toll xëy na loolu erreur la tam ci biir famille waaye état moo ñu jiite ñun ñëpp moo ñu war a taxawu moo ñu war a fegu bu dee njiit bi ñu fi amoon taxaw na ba ne pipi de la nation pipi de la nation noonu nga xaar ba xale yi dem ba am 10 ans ba am quinze ans après nga door a taxaw di gestu ay pipi de la nation yeneen at yee des ci ginnaaw lu mu njëriñ. fekk ñu bëri majeur nañu. ñenn ñi boo ko bëggee jubbanti ca ba muy liir nga koy jubbanti waaye ka dem ba majeur ah nga door a yegg si naan yaa ngi koy pipi de la nation est-ce que kooku yaa nga koy jàpp nga ca la ko éduqué jàppoo ko te bu fekkoon euh, yaayam ma des ca kër ga amul loxo te kenn gestuwu ko. ou ñun ñëpp xam nañ li xew Sénégal ba xaalis ba taxawee ñenn ñi dañ koo séddoo pipi yi jotuñu ci yaay yi ñu génnee leen seen kër yi ñii leneen ak leneen ak leneen daal na ma yàlla baax loolu ban taxawaay la ci association yi am. association yi dañ si defoon seen ay groupe def si ay jéego ku ci amaan sa doom bu feebar dañ daan xool bon volonté yi nag am na fi. bonne volonté yaa ngi fi de te ñu ngi fi ba tey te ñu ngi leen di gërëm ñooñu dañ daan ànd ak as ak euh, famille yooyu di leen jàppale ci scolarité xale yi ci fajum xale yi loolu yëpp am na fi si ginnaaw balaa ñuy door a jot ci ay waxu pipi de la nation te ñooñu nit ñu mel noonu ñooñu la ñu soxla ci Sénégal tey ñu jàppale ñu ci bés bu mel nii nit ñi di fàttaliku ñun ñu ngi jàng ay drame ci yeneen dëkk. civisme am na ci réew mi école primaire bi sax tey war nañ di jàngal xale yi batalo joolaa mooy lan vingt ans après waroon na mën a dugg ci njàng mi ñu koy jàngale xale yi di xam ne lii moo xewoon ci réew mi te lii waratu fee xew xale ba nga tàggat ca ba muy liir di ko tàggat ci jub di ko tàggat ci ragal yàlla di ko tàggat ci wax dëgg kooku bu màggee bu doonee kilifa ci réew mi gëm naa ni du def li li amoon fii. léegi yéen loo leen xaar ci état bi exactement. man di deug deug budé man ci sama bopp amatuma yaakar ci ñoom waye nak li ñi ñaan moy bis bu melni tay ñu taxaw commémoré ko ndax bo xolé dekk bi légui lu nee fi auto day fees bo wenk lolu mën na jur leneen. da melni ni jëluñu ci leçon ba légui ci batalo joola. xalaataguñ ci jël leçon ci dekk bi ma gis ni ak fi nit ñi di dem xana ñun ñi nga xam jar nañ ci am ci xer ñu ngi gor góorgóorlu di ñaan ñu ngi ñaan nak bis ñew nit ñi am conscience ci lolu loolu daal lañ leen di ñaan. léegi loolu leen leen conseillé population bi nga xamante ne chaque fois comme ni nga ko waxee dañu nekk ci duñ jàng leçon ci benn benn daraam. su tey bii de population bi war naa taxawaat xool ndax ku ci amul mbokkit am nga ci xamel ku ci amul xamel am nga ci dëkkandoo waaye mbaa mës ngaa dox ba gis kenn ku mu dal ñaan nañ daal nit ñi delluwaat ginnaaw xoolaat seen xel ñun utuñu fayante utuñu ko tooñ ko tooñu loolu yëpp àllaay soxlawul luñu ko li ñu li ñu soxal mooy seen mu njëriñ Sénégal. njëriñ Sénégal mooy maanaam nit ñi soppi doxalin soxna si ñu baal ma àq nag sànq bi may waxee na waxee naa xol ñu baal ma àq. maa ngi lay sant di la gërëm yaa ah, sant naa leen.